Touba ca kanam Touba ca kanam ak commission massification ci njiital Serigne Bara Mbacké ñoo leen di yëgal bëccëg bu mag bëccëg boo xam ne mbokk yi dañu ko jagleel mbooleem kuy collecteur wala kuy collectrice bu Touba ca kanam képp ku yore ay reçu Touba ca kanam alxames incha allah fanweeri fan ak benn ci weeru décembre ci kër Serigne Touba gi ci garage Darou Marnane ña nga la cey woo bés la bopp mbokk yi képp ku yore ay reçu képp ku jiite mbootaay yore ay reçu Touba ca kanam da ngay teew ci kanamu askan wi ñu dajale leen ñoom ñëpp kenn ku ci nekk wax la nga jëloon ci ay reçu la nga ci jote wecceeku ak lu ci des mbokk yi Touba ca kanam laaj nit ñi lu ñu mën di ko def fu ñu xam 31 décembre di alxames bu ñeenti waxtu jotee ñun ñëpp ñu daje ci kër Serigne Touba gi ci garage yu Dakar ngir lan képp ku yore ay reçu mbokk yi ñëw leeral askan wi tolluwaayu liggéey bi ci njiital ak ci teewaayu bi bu mbakkee ak mboolem kilifa yi ca kanam mbokk yi bu ko kenn wuutee.